ñun day mbàkke bu dul woon yéen xawma fu jëm ci lu wér euh, as ndoom su góor laa yor yóbbu ko njurul yaakaar naa ni su mokkalee alxuraan ma mën a waat ci sëriñ Tuubaa ci sama askan moo ko ci a def ni ñu toll te dañoo bari sama baay 1919 la judd doomi mag la te kenn ci ñun koo xam ne man mën na jàng ëw isib bu leer amut ci ñun waaw yàlla amul benn kumpa xam na ko waaw lii ñu fi indi ba ñu dogu ci ni dof ci xam nañ ko de safara lan doon dem direct sëñ bee jàpp bu dul woon sëñ tubaa kenn mënu noo tee dem safara man Serigne Saliou dama wan sama bopp ànd ak man ba ci benn jëmm boo xam daf ma ne kee xam nga ko ma ne ko waaw mu ne ma kan la ma ne koy man la waaye kooka mi ngi sol costume yor ab cigarette yor butéelu sàngara mu ne ma soo ànduloon ak man nee ngay mel. te soo melee ne faatu nga bu yàgg ñu teg ci fukki at ma dem France bi ma demee op docteur yi xool ma docteur bi bi ma woowee daf ma ne yow euh, yegoo dara ci sa yaram ma ne ko déedéet mu ne ma da nga feebar de ne ko yëguma dara sama yaram mu ne ma yow yaa ngeeg cent quatre-vingt mille virus hépatite B da ngay tux ma ne ko déedéet da ngay naan sàngara ma ne ko déedéet mu ne ma soo doon tux wala ngay naan sàngara dee nga bu yàgg ma ne ko sama sëriñ wax na ma lii mu ne ma xaw ma luy sëriñ waaye am nga sëriñ bu ma tub sëriñ moo ma tee faatu moo ma dem safara ci loo xam ne mën naa cee teg sama loxo ndax ku sàngaraak cigarette rey xaw ma saw lay barke boroom Touba lii rekk nag moo tax fi mu ne ku laal yoon wi sunu ñu dof complètement waaw ndax amu nu def na wóor ne amuñu ku dul sëriñ bi te sunu dund ak sunu dal ak sunu yëngu lépp moo ma faj na ma ba ma wér fi mu ne nii dara jotutuma vision.com la crédibilité notre credo Senevision.com world la ñuy tëggoo kumpa tàggoon